del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu kon bum la tax nga nekk nervi mm-hmm. bum la tax nga saaga koo warul saaga mm-hmm. bum la tax nga fàtt tur min ar rahman mu ne leen njëriñ ak lor da ngay dugg politique da nga ànd ak engagement politique am koo àndal mais na la wóor ne njëriñ sa njëriñ ak sa lor nekkul ci loxo kon bum la tax nga nekk nervi bum la tax nga saaga koo warul saaga bum la tax nga fàtt sa waxtu bum la tax li nga xamante ni moom nga war sa digganteeg sa bopp nga matal ko sa digganteeg sa morom nga matal ko sa digganteeg sa borom nga matal ko donc politique ñu ko waxee ci ni ngeen ko xamee yéen ñëpp mooy nan la ñuy def rek ba société ba pénc mi jag nan la ñuy def ba kenn ku ci nekk fii du xool lan la lan la ko caaro yi defal waaye danaan man lan laa war a defal caaro yi mhm. ba pénc mi jag éthique bi mooy yitte bi nga xamante ni dina ko am ci sàmmonte ak ngoram ak diineem du ma jëli définition éthique fenn ci tubaab yi ni ñu ko définiré mhm. fii rek laay yëpp mhm. ci ni ko gars yi définiré te lu ñuy jéggaani tey rek suñu gars yi définir nañ ko ba pare keroog laay wax ma ne ñu bari tey dañuy naw Nelson Mandela trop mu am mérite lool nag. Mm-hmm. ndax ñaar fukki at ak juróom-ñaar lañ ko tëj kaso. wala place yoo xamante dañuy def Europeans only nga xamante ni ku dul nit ku xonq rek waroo dugg fii waroo toog fii waroo def nangam. mu xeex ko bay bëgg a dee ñëw ci mandat bi mu ñëwee def jël pouvoir def cinq ans daal di démissionné bàyyi nguur gi. Mm-hmm. ma ne leen ñun dañ koy yéen. te xamuñu ne la révolution torodo bi ko Thierno Souleymane Bal defee daf ko def ba noppi ne man sax du ma exercer pouvoir daal ne Cheikh Abdoul Khadir Kane ñëwoon nga exercer pouvoir bi loolu lan moo ko gën a màgg waaye ñun gis nga bu ñuy jël exemple rek te arab yi nee nañ ku gën a jege gën a yey kon kay ñii ñoo gën a yey ñii ñoo gën a jege ñii ñoo gën a yey donc bu dee ci wàllu politique ñoom jëfee nañ ko damay wax keroog am benn waay bu ma ne li suñu borom wax ci yonent bi salaatu wasalaam laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ma ne ko tey jii noonu ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul donnee aussi fondamentalement et à tout point de vue loolu moo tax lépp loo xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa defoon na ko Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul def na ko son implication ak le fait que mu exercer la plénitude de sa citoyenneté au sens propre du mot amul lenn loo xamante ni dinañ ko sikki sàkk gis ngeen implication digganteem ak ni nga xam noonu la dimbalee euh, li nga xam ne mooy régime bi fi nekkoon surtout ci wàllu xaalis bi ngir ñu bañ ko dévaluer ndax boobu baaxuloon ci li nga xamante ni moom mooy euh, moom mooy euh, ñi nga xamante ñoom ñoo dëkke woon réew mi waaye gis ngeen jamono bu nekk amul réchigné wul ci tâche am ndax rupture boo xam ne indi ko ci wàllu dundun tasawuf ndax tasawuf moom rupture fondamentale bi bi mu ci indi mooy lu ko jiitu gars yi bu daan dund tasawuf dañ daan dañ daan aajowoo génn biir nit ñi dem ci àll bi nekk fa loolu wane ay limite objectif am li nga xam noonu la ko sëñ Samba di appelé di di fàttali ci ki nga xamante ni moom mooy Balham ak ki nga xam moom mooy Bilsis suñu borom ñoom ñu wane ci seen limite moom tasawufam mooy da ngay ñëw intéressé wu la marche de la société loolu moo taxoon mu am projet de société hmm. daal ne moom nii la gis ne noonu la ñuy def ba vulnérabilité yi nga xamante ni am na ci couche de la société lu lu lu ci mel ni jigéen ak xale hmm. te ñaar yooyu réew moo xamante ni justice amu fa ñaar yooyu la ñuy gën a nërmeel hmm. lool moo tax nga dégg sëñ Saliou Mbacké appel am bu am solo boobu mu defoon bi mu ñëwee nekk Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mu ne jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom li Serigne Touba daan def ci mag ñi. Mm-hmm. bu nee li Serigne Touba daan def ci mag ñi da cee jublu rek ci ñi nga xamante ni ñoo fi jiitu woon ndaw ñi waaye ñooñu Serigne Touba daan tàggat ba mu leen daan tàggat ci fleur de lage la ñu toll comme nii. ndax yéen ñëpp ngi fàttaliku bi muy yónni Mame Thierno Ibra Fati muy dem ci Merlin di jëflanteeg moom di waxanteeg moom boobu Mame Thierno Ibra Fati il était à la fleur li nga xamante ni wala ci lay toll li nga xam loolu la histoire jàngale mm-hmm. donc. li wane rek ne exercer la plénitude de notre citoyenneté loolu du génn diine benn yoon politique mënul génn diine benn yoon waaye su fekkee ne dañu ne politique bi nii ñu koy pratiquer ci Sénégal bii nga xamante ni dañ la wax ne la jaayal sa ngor ak sa diine wax dëgg fa yàlla su boobaa nga bàyyi leen ko nag waaye quel est l'enjeu enjeu boo ko déggee mooy lan la ñuy perte ak lan la ñuy gagner ci waxtaane politique ak éthique ci weeru koor lenn rek moom mooy enjeu bi hmm. mooy dañoo bëgg waxa waxaat ak xel yi waxaat xol yi ci wax leen ne mënul ñàkk ngeen impliqué wu dans la vie de votre société de votre communauté waaye mënul ñàkk it ngeen ngeen protéger seen diine ak seen ngor mu nekk dialectique bu xaw a doy waar surtout ci Sénégal nan ngay def ba sa yitte ndax loolu mooy fondé yoonu murit mooy himma rabbi asxaabaka bil himma himma mooy lan mooy itte ju màgg joo xamante ni nit ki dina ko am ci am ngërëmal suñu borom mooy niyatu mooy yéene ju màgg ngir am ngërëmal yàlla mooy iraada mooy namm ngërëmal yàlla nga boole ko azm muy dogu waaye nga am xadaf nag mooy objectif boo xamante ni objectif bu leer la jóg dox ci tànk yu dëgër ànd ak woy ak dëddu ak ak ak ak bu mat sëkk te loolu lu lu lu lu am solo la lu am solo la ci définir ko ci lan mooy dëddu jamono yi. Mm. ndax dégg naa bëri na xale yoo xamante ni waaw dañuy tàmbali rek di jaalimatu fu ñu toll yooyu ba mm. rapport yi nga xamante ni war na seen diggante ak seen soxna dootuñu ko def. Mm. maanaam rapport humain yi nga xam war na seen diggante ak seen soxna dootuñu ko def. mënatuñoo xam nan la ñuy téye seen papa ak seen yaay te diine ju la xañ rafetal sa diggante ak say wéyjur perte nga la nga doon ci wër c'est fondamental. wa qaddaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bi waalidayni ihsaanan la suñu borom tënk donc bala ngay nekk citoyen bu modèle ci biti mais foog nga am éthique ci biir kër gi kër gi tamit gestion la politique la kër gi tamit li sa bàyyi di xëy di daw suba ba ngoon jot politique la rek mooy politique pour nga lekk ba suur politique pour nga faju politique pour nga am un mieux-être ak euh, benn boo xamante ni war nga ko am mm. léegi soo réglé wul politique bi foofu mais soo génnee ci biti nan nga koy réglé ndax boo génnee ci biti li nga namp rek moom ngay toxtamti ku xawma nu ko mag ñi di waxee mm-hmm. donc li nga namp rek moom ngay génn ci biti mm-hmm. donc ñu ci bari comportement bi ñuy am ci biti ci biir la la la gën a jégee dayoo mm-hmm. dañuy génn ci biti nag pour exploser parce que ci biir duy nañ ci ba fees dell donc euh, loolu moo tax fokk ñu dellu ci xam-xam loolu moo tax foog ñu del ñaar la l'islam xeex xeex boo xamante ni daf leen déclarer guerre mooy réer ak ñàkk hmm. nangu ci benn loolu moo tax mu ne dem leen wuti xam-xam doonte da ngeen dem ba Chine yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu déggaat ci ne sàkku xam-xam farata la ci yéen fa farata farata nag xam naa ni ni ko borom xam-xam yi di définir mooy loo xam boo ko deful am ay daal yu la ci fekk donc le savoir il anoblige loolu la Cheikh Anta Diop di wax dafa wax ne dafa wax ne chercher du euh, chercher du savoir dafa dafa wax ne il faut il faut il faut il faut ngeen wut xam-xam ba egg ci benn violence boo xamante nii di ngeen ko teg seen bopp parce que bu ngeen ko deful dinañ leen teg violence boo xam di ngeen xam ne wut xam bi jarul na te violence boobu mooy oppression morale oppression psychologique mooy li Cheikh Anta Diop di wax mooy aliénation parce que doo xam sa bopp te boo xamul sa bopp doo mën a maîtriser rapport bi ngay am ak keneen donc kii ñëw ne dafa bëgg nga ànd ak moom ci politique mais bu fekkee yow réeré nga sa bopp kay mënoo xam rapport bi ngay entretenir ak moom. Mm-hmm. donc xam sa bopp dafa am solo te xadisul xudsi yi sax daf ñu ci engagé. man xarafa nafsuhu xarafa rabbuhu bu ngeen xamee seen bopp sax xam seen borom. Mm-hmm. kon xam sa bopp nag du looy mm-hmm. naa ne lu yomb. donc loolu moo tax mu mat a def ay taxaw seetlu. loolu moo tax thème bi am pertinence parce que dañuy bëgg li tubaab yi di wax que que man en tout cas tey je dormir mooy bett. bu fekkee ne am na ci loo xamante ni dimbali nañ la ci. ci nga gën boo xam gën ci yeewu gën a sa jublu nga mën koo wëlbëti donc rapport bi ngay entretenir ak kii ñëw di sàkku ak yow rapport bi ngay entretenir ak sa bopp d'abord rapport bi ngay entretenir ak sa morom rapport bi ngay entretenir ak sa borom rapport bi ngay entretenir ak sa nation sa communauté rapport bi ngay entretenir président de la république ak ministre ba député ba maire bi tant que xamoo sa bopp mënoo xam rapport bi nga am te nii rek moom mm-hmm. te bu dee réere nga sa bopp mooy commencé nga nag ci ñàkk éthique mm-hmm. doo xam lan mooy éthique mm-hmm. donc loolu nekk loo xamante ni lu am solo donc xam-xam bi fondamentalement mënta ñàkk beneen bi mooy ñàkk waaye ñàkk xam-xam sax ñàkk la du ñàkk bu ñu ko waxee léegi rek dañuy foog ne matériel la waaye ñàkk xam-xam ñàkk la ñàkk diine ñàkk la ñàkk ngor ñàkk la ñàkk donc ñàkk dafa bari ba ci ñàkk nag li nga xamante ni moom mooy koppar xaalis mooy li sëñ Moussa Ka di wax nag ñàkk sax dafa bon ci waaju baax kon nag waaju bon xam naa ne tabarkàlla bu fekkee ne ñàkk baaxul ci waaju baax ku baaxul foofu fu mu jëm mm, mm. donc loolu moo tax l'islam xeex réer waaye l'islam xeex fondamentalement li nga xamante ni moom mooy ñàkk hmm. donc loolu moo tax tey jii ñëpp war jël combat yooyu tamit xam ne seen combat la hmm. ndax combat yi woon démb mooy combat yi tey ba tey hmm. li sëñ mu Ka di wax naan ña noonu woon sax ñool màkke ñool màkka ñoo noonu tey jii ñool mbàkke <coughs> donc combat yi du changé. xam naa comme ndoxoo gi waaj a jot. ja jaajëf yeeg ña ngeen ñi moom. waaw duñ dégg de. ah xam naa fi ne dootuñu dégg dara. waaw peut être duñ def man maa fóotee ah man maay leen di jégalu bu baax. Mm. ci temps li ñu préparé woon pour waxtaanee ko sax. Mm. ñu ko waxtaanee. Mm-hmm. Euh, xam naa ne rek dinañ amaat yeneen jotaay. yoo xamante ni dinañu permettre nga xam du doon weeru koor. comme ça jaajeen yeeg ñegeen yi. ak gayeen yi mën a concentré wu. <laughs> ñu ñëw jël thème boo xamante ni dinañ ci jël ay références d'ici et d'ailleurs. gën ko mën a waxtaanee. waaye di leen gërëm di gërëm aussi sama benn jëwriñ boo xam ne ma nga fi fekk tey mooy sëñ Ndiaga Seck waaw ah, mooy koo xamante ni léppam sëriñ Touba la jàmbaare lool waaw ah, ñuy ñaan suñu borom lépp lu mu ci bëgg rek yàlla suñu borom defal ko ci lu kawe jortam di jégalu bu baax ah. thème bi xam naa ne épuisé wuñ ko mm-hmm. waaye bu fekkee am naa message bu may bàyyi daal mm-hmm. surtout ak ndaw ñi mag ñi sañ ma leen digal mm-hmm. waaye ndaw ñi mooy nañu gën a góorgóorlu ci xam-xam waaye xam-xam yëpp nag waxuñu rek nga xam ni xam ni ngay woore daal di ci yem waaye nga xam xam-xam yëpp bu leen yemale seen benn seen bopp fenn ci wut xam-xam kuñ ne ci ku ci ku ci ku ci système éducatif Sénégal gëmloo tamit ne dàq nañ la école dàq école boobu ñu la dàq tekkiwul dara ndax nit ñi toll nañ tey ci am diplôme yu gën a kawe te ñoo gën a nulaar lu yàlla bi donc système boobu ñu leen gëmloo ne leen mooy bu baax bi bu leen ko gëm lu fa nekk dem leen xami ko waaye buñ leen gëm lee tey ne parce que dafa bëri ci banlieue décrochage